amaat mbégte rek bu baax a baax a baax saa su ne di ànd ak yéen ci MPROD TV mbokk yi tey ñu ñëw fi nga xamante ni moo di Gounass Gounass nag yaakaar naa ne bés bu mag bi nga xamante ne tey yanu nañ ko fas yéene ñoo xam tey nag ci turu saat war a jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di Jokkel di bés boo xamante ni bés la bu waa Gounass fas yéene gunge seen doom mu jële ji li nga xamante ne moo di ndam li waaye ñu gisee ni tey noonu la ñu génnee dafay mel ni tey pare nañ pare nañ ci li nga xamante ni tey moo di bés bi ndax it ni ñu ko faral di waxee mbër mi daanul woon bëree ay xelam waaye tey dañu ko bàyyi ak boppam dañu ko bàyyi ak boppam ne ko jëlal làmb ji nga jël ko au sérieux demee seeg xel demee seeg sa sago indil ñu li nga xamante ne moo di ndam li ñi ko noonu nag tey la ñu ànd ak Impro TV ñëw fas yéene leen wan li nga xamante ne moo am fii ci ambiance fas yéene leen wan li nga xamante ne moo di départ mbër mi xamante ne moo am fii tey bi Gounass waaw Ndeye Gueye boobu léegi amul jot ci affaire moom yàgg naa mel ni ci bésu papa mu waaw bilaay walaay ndax tey papa waaw incha allah ndamet woon na yàlla nga gis ne ko yebee day inshallah bu neexee yàlla waaw yàlla bëri si loolu quoi ba si kanam waaw ayla ndegeen le moral est bon ñaanal moo ne na Ndeye Gueye tey confiance la àndal Ndeye Gueye mu ngay dem bay bëre mu ngay bëre ak ay ay njëkkeem tey crève bi la man mi xam nga gëm cela veut dire Ndeye Gueye wax ci wax tey ci terrain Ndeye Gueye ñooy bëre léegi tey xel mi dafa dal. léegi tey. léegi tey xel mi dal na. ndey moral bi baax na de tey. Elaj Kébé. Elaj da ngay da ngay. waaw mooy yaay de tey boo gisee adéquate. Maji maji Imagine, imagine, imagine. booy bii nii te muy sol sañ. bàyyi ko xel moom mooy Papa Djiné numéro 2. cinq combats la am. cinq victoire la am. waaw dégg nga waaw. lii ñu def am tool waaye du taal gis. barke Serigne Touba waaw mooy Djiné bi nga ne. waaw tey tey xaw xaw mu xonk la indi. xaw mu xonk mu teg ci bopp. yor ginnaaw wolof. waaw dégg waaw. Papa mooy Djiné bi nga ne. xoola xale yi koñ bi yëpp ñu riir Papa Boy Djiné ngi génn koñam mu ngay dem mu ngay dem mu ngay dem mu ngi dëgg ci benn odi la dugg odi giri mu ngay dem gunaas génn nañ xoolal li gunaas génne. dina baax dina baax dina baax de dina baax de léegi. lay lay la laa. Ndeye la wax